ay gëstukat ñuy sàkku xam-xam ak di dolliku seen yitte ñu def ko ci menn mbir te mooy xamle sëriñ bi radiallahu anhu Cheikhul Xadim ak tasaare am njàngaleem ak dundal ndono lu xam-xam lu mu fi bàyyi. kuréelu xam-xam la kuréelu xam-xam nag comme nu ñu ko xamee kuréelu xam-xam bu mu mënti nekk liggéeyam. dafa am ab gisin mooy lu ñuy wax vision boo xamante ne moom moo koy cësraayal vision boobu moom mooy wane euh, fan la ñu war a jëm ban yoon la ñuy jaar pour yegg fa ak ban doxin la ñuy dox ba yegg ci loolee nga xamante ne moom la ñu bëgg ci ay objectif ñu sos ko ci atum 1437 dëppoog 2015 sosoo ca marok ay bokk yu baax yoo xam ne seen pas-pas ak seen pësteef ñun ñi bokk ak ñoom liggéey bi xam nañ ko ak seen i taxawaay ak seen yéene ju rëy ju ñu am ci liggéeyal sëriñ bi. su ko defee ñun nag ba ñu tollee ci euh, euh, teg vision bi nga xamante ne moom mooy euh, moom moo ñuy wan ban yoon la ñuy jaar ak ni ñu ciy doxee dañu ne la ca gën mooy. Euh, nañu xool tur bi nga xamante ni moom lañu euh, tànnal suñ bopp te muy benn ci dàkkantal yi nga xamante Sëriñ Tuubaa daan na ko dàkkantal boppam euh, te mooy alxidmatu ñun ñu tudd arrabita alxadimiya kon ñu ne comme que ñun xidma moom moo ñu tax a jóg mooy xidmaal sëriñ bi le gën ci li ñuy inspiré wo suñu vision bi nga xamante ni moom mooy déterminer suñu doxin mooy ñu dellu ci bindu sëriñ bi su ko defee vision bi nga xamante ne ni moom la sëriñ Touba daan doxee ci xidma gi mu doon xidma rasulullah alayhi salatu wasalaam xoolee ay bindam dañuy gis ne tas na ko ci su ko defee nag ñu ne nag kon nañu xool ñu inspiré wo ci noonu daal di xam sëriñ bi xool fa mu féetewoo rasulullah alayhi salatu wasalaam ñu ne tam ñu jéem a féetee foofu rek te xam ne foofu la tawféex gi nekk ñu jëlit nag benn bat bo xamne mom lañ def muy bakku daira bi muy attafaulu wal khidmatu fi somt am yakar lol njort lu rafet ak yakar ju rafet ci ne liñ bëgg sotal dana mëna soti waye waaye nak ñu tek ko ci liggéey nak bu wér te boole ko itam nak néewali kaddu manam liggéey bop lepp rek ci suuf lañu lu ne daal day noppi rek ñu doog koo génne mu doog a fés tey it ci lenn loo xam ne dana ànd ak benn xeetu propagande walla xeetu folklore wala mu ànd ak yenn xeetu yëngu yi waaye liggéey bi daal fas yéene mu nekk liggéey boo xam ne bu sell lay doon boo xam ne lépp ci dal lay amee. ba ñu xoolee nag dañu gis ni sëriñ bi euh, liggéeyam dafa jëmoon ci ñetti wàll euh, bokk na ca liggéey yooyu mooy euh, fexe. ba nga xamante ne dana xamale dëgg-dëgg-dëgg kam mooy rasulullah alayhi salaatu wasalaam mu nekkoon lu am solo ci liggéeyu euh, sëriñ bi moo tax bindam la ca ëpp boo ko jëlee quatre-vingts pour cent yépp wala sax lu ko ëpp dafay jëm ci tagg yenent bi alayhi salaatu wasalaam te loole boo demee ci mën nañu am benn bayit boo xamante ne dina ko tënk euh, te mooy bi muy wax alayya li wajhillahi jalla jalaaluhu Euh, laka dahra am daaxun mazaayaaka tarfaxu waaw euh, wax ne euh, maanaam naa li feeg maa ngi dund di bind ay bind yoo xamante ne nii dafay fësal say may te booba mi ngi doon wax ak rasulullah ñu ne ah kon nag benn doxi na ngi nii mooy nañu fexe ba tuubaa Touba ñu yëkkati jëmmam ji ba ñëpp xam ko objectif yi nga xam ne itam nag moom la ñu am itam nag ngir euh, dox jëm ca mënees na koo tënk ci ñaari mbir kon te dañ koy leeralaat rek waaye waxoon nañ ko léegi junjoon nañ ko ci suñ kàddu te mooy xamle Cheikhul Xadim radiallahu anhu xamle Cheikhul Xadim radiallahu anhu ca anam ga nga xamee ne mooy na mu demee dëgg-dëgg ba adduna sëpp xam ko ba ni nga xamee ne fii ngay nekk ci senegal ci sowu jant Afrique ñu lay tudd ay nit yàlla yu mag ay borom xam-xam yu mag yu dëkkoon ca réew yu sori ca asi ak réew yu sori ca wetu Europe ñu dox ta saare seenu tur liggéey leen ba seeni tur fekk la fii nga xam leen ba mujj mel ne ñoo xam ne dañuy samaam yu fi nekkoon démb wala barki démb ñu fa yéene liggéey nag ci sëriñ bi itam ba nga xam ne aw turam noonu lay fekkee ñeneen itam ci yeneen i gox yi nga xam ne fa lañ dëkk fa lañ nekk te lépp nag mu dëppoog na nga xam ne na la demee woon dara des ko ci soppi des ci yokk dara des ci wàññi dara tasaare wooteem bi itam nag ci àdduna sépp itam rawatina ci monde islamique bi ba nga xam ne euh, fu ab jullit nekk rek da nga dégg turu sëriñ bi xam ko te boo koy xamit xamee ko na ko war a xamee euh, loo mën a xam ci moom itam nga xam ko ci moom ñaareel bi itam mooy ndono li mu fi baax bàyyil ñu ko fi bàyyil julit ñepp fuñ mëna nek bal ci kaw suuf bal ko fi sax nit ñepp rek waaw ndax ndonol sëriñ bi amna na ci lol ñepp ko mëna jariño julit ak ku dul jullit ko mëna jariño ndax dafa yaatu da matale dafa dacc ci wet yépp fesee na ko liggéeyal ko tassara ko ba nga xam day dacc kap aduna sépp ñepp man ko jariño ñepp man ci jot waye nak ko ci anamuk la ci doon lo xam bind la euh, li mbind laaj ci taxqiq ko ak wéral ak jaarale ko ci norme yi xam-xam laaj ak def ci ay njàngat ak leeral yaatal ak euh, lu ci jar ñu war koo sottaxndiku ci ay lakk yu wuute sëriñ bi xam nañ ci làkku arab la doon bind ñu sottaxndiku ko yu ko ci yeneen làkk yoo xam ne adduna si dañ koy wax te ñëpp mën ko dégg ngir ñu mën koo jariñoo boole ci it nag euh, yooyu yëpp buñ ko defee ba noppi ñu mool ko moolin wi nga xam ne moom la jamono tollool waaw moolin wi nga xam ne téere yi gën a jamono ci jamono moolin yañ koy mool ñu mool mbindi sëriñ bi itam ca moolin yooyee su ko defee nag moo tax fa ñu njëkk a tàmbalee ci suñu liggéey mooy fexe ba ñi nga xamante ni dund nañ ak sëriñ bi jonjoo ak moom te bind ci moom ñu fexe ba bind yooyu ñu fesal ko ba ñëpp xam ko biiru ñeenti at yi jàpp juróomi at yi jot nañ cee génn ay téere yu takk yoo xam ne lépp dafa jëmaat ci sëriñ euh, atum 2015 ba léegi lañ tàmbali liggéey boobu nga xam ne mooy génn téere yi di ko saraawaat di def ay liggéey yu am solo. liggéey bi nga xamante ne euh, Rabita al Xadimiya njëkk na koo liggéey euh, moom mooy an nafaxaat al miskiya ñu bokkoon ko man ak sama mbokk sëñ Chouaïbou Thiaw taxqiq ko nekk liggéey boo xamante ne moom mooy njëlbeenu meññitu kuréel bii nga xamante ne. taxawaloon nañ ko. mën nañ ne 2015 la njëkk a génne téere An-Nafahatul Miskiya euh, An-Nafahatul Miskiya boobu it 2019 bi génne war nañ ko muy téere boo xam ne day jàngale euh, jaar-jaari sëriñ bi 2017 2015 ñaari at ci ginnaaw ci lañ génn nag diwaan bu am solo boobu nga xam ne euh, Cheikh Ibrahima Diop al-Mashhad yi moo ko def muy diwaan boo xam ne nii. ay way yu am solo yu kawe lool mu jëmale ko ci sëriñ bi euh, rabita bi def na liggéey bu am solo ci diwaan boobu dajale ko génn ko waaye def ci it ak liggéey bu am solo boo xam ne euh, mbokk yëpp rafetlu nañ ko 2017 boobu it ci lañ génnee téere téereb Cheikh Mouhamed Lamine Diop Adagani yu euh, bu siiw boobu di Irwa un Nadim téere boo xam ne moom it day jàngale lu jëm ci jaari jaari sëriñ bi ñu def ci liggéey bu am solo boo xam ne bindaan nañ ko waaye yaatalaal nañ ko leeral nañ ci lu bare bare bare bari macha allah irwaa u nadim min azmi xubbil xadim irwaa u nadim itam ku nekk xam na ki ko taarif du ko ñuy xamaleeti te mooy euh, euh, sëñ Mool biñ Jóob Dagana dëgg la am na euh, jot nañu ko mool moolaat ko waaye gisoon nañ ni liggéey bi des na war nañ ko mën a liggéeyaat gën koo tas ba nga xamante ne dina gën a yaatu fenn fu nekk rawatina ñun fi ñu féetee nii mu nekk itam loo xamante ne ku ko bëgg a jënd ci internet bi dina ko jënd daal di koy gëstu. 2017 boobu it ci lañ génnee al mughni fi maani faydil ghani al mughni moom it bokk ci téere yi sëriñ bi ni ma ko waxee woon cee jiitu it ñu génne ko def ci liggéey bu am solo kasaalika it fatful xafaar fi charxi tasawuri sixaar di téere boo xam ne day saraa. téere bii di tasawuru siraar moom it euh, ci deux mille lañ ko génne euh, deux mille dix huit boobu it ci lañ génne majmuatu sohra soxraa mooy moom it muy téere boo dafa dajale ay ndénkaane sëriñ bi euh, ak i njàngaleem moom it ci 2018 mille dix lañ ko génne deux ci lañ bu am solo ñuy wax ila al moom it ab téere boo xam ne day mel day nettali uh, ay jaar-jaar ak i xew-xew yoo xam ne ni ci jamonoy sëriñ bi la. mu nekk beneen anam bu bees ci bind ci sëriñ Touba uh, te mooy bind loo xamante ne ni ñi jàng tubaab li ñuy tuddee roman uh, rixlati ila Cheikh al Xadim ko ci anam boo xamante ne. dafay am ay personnage yu muy jëmmal ci biir ak yooyu noonu di jël wax yi nga xamante ne soloo na ko ci Serigne Touba li nga xamante ne déggee na ko ci ay mag li nga xamante ne nettali nañ ko ci ay téere te mu tàqali ko mu jël ko nose ko ci benn nettali boo xamante ne ñi nga xamante ne ci boor boobu la seen lecture gën a jëm euh, dinañu ci gën a euh, mën a sawar euh, dinañ ci gën a sawar ngir yër ko xam itam Serigne Touba ci anam ga nga xamante ne moom la ñu Euh, taamoo di ci liire. ci deux mille dix neuf boobu génne nañ ci diwaan bu mag boobu nga xam ne dafa dajale ay xeeti xam-xam yu yu yu wuute moo xam xam-xamu tawxiid xam-xamu fiq xam-xamu tasawuf euh, li nga xam ne sëriñ bi bind na ko ci mu dajale ay téere yu bari daal yoo xam ne euh, ab diwaan lañ ko def mën nañ ne ca jamono jañ ko génnee rek liñ ciy jotoon a génn lépp dafa daal di jeex ba ci deux mille vingt bi ñu génnewaat ko. 2020 boobu it ci lañ génne silkul jawaahir moom it ci at moom lañ ko génne waaye teewut liggéey bi day continuer ba jamono jii ñuy wax ak yéen am na ci liggéey yoo xam ne ni yemb na euh, te incha allahu taala euh, fii ak fan yu néew wala diir bu néew dana génn bokk na ci liggéey yi nga xam ne pare na ca man koo tudd muy diwaanu saadatil muridina fi am daaxi xayril musallin di ab diwaan boo xam ne nii sëriñ bi da ciy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa ay xasaayid la yoo xam ne nii serigne bi radiyallahu taala anhu da ci tag yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam diwan diwaan boo xam dafa dajale kat yi nga xamne ne way yi nga xamne ne kat yi senegalais senegalais yi di ay kat di ay borom xam-xam di ay jambar ñu jëmele ko ci serigne bi diwan bobu it man nañ ne naka naka non diwan diwaan bi nga xamne it sunu ko mauritanien yi def serigne bi di ay tag yo xamne ni aki ak i ak melal serigne bi yoo xam ne ni sunu mbokku naaru gànnaar yi ñoom ñoo ko def ci sëriñ bi diwaan boobu it mën nañ ne liggéey bi pare na waaye diwaan Cheikh Ibrahima Diop almashar yi bi ma waxoon léegi ci ginnaaw euh, ñu ne génn nañ ko 2017 moom it mu jeex ci maktabaat yëpp mën nañ ne mbooloo mi di ko laajaat moom it incha allahu taala liggéey bi liggéeyaat nañ ko liggéey bu am solo boo xam ne euh, bokk na ci yi nga xam ne am nañu yéene yi mu génn balay yàgg euh, kasaalika it asmaa ahlul badr di ab xasiida goo xam ne nii sëriñ bi da ciy Euh, waa Badar euh, di xasida gu am solo gu goo xam ne nit def nañ ci ab liggéey boo xam ne ni moom it mën nañ ne liggéey boobu yemb na bokk na ci yi nga xam ne it am nañ yéene mu daal di génn bala yàgg. kon su ko defee maanaam euh, benn ngi noonu ci sunuy macharia yi nga xamante ne ci la ñuy dox te mooy xamale Serigne Touba mooy jëmmam ji ñu xamale ko jaar jaaram ñu xamale ko te sax dina am yeneen ak yeneen yu ci toxalu yoo xamante ne. support bi dina wuutee ak support yi doon am ndax liggéey liggéey am na solo waaye liggéey bu nekk itam ak support bi nga xamante ne moom moo dëppoo ak moom. Euh, tasaare itam mbindum sëriñ bi nag ci mbooleem xeeti anami tasaare yi niñ man yëpp itam niñ koy defee ci ay téere yoo xam ne ay kutub waraq ya lay doon ñu defe ko noonu itam ci jumtukaayu xarala yu bees yi ñu xam ci ubbi ay site internet ak yu mel noonu yëpp yoo xam ne. fuñ mën a jaar daal bépp support boo xam daal mënees na faa jaar ba mbindum sëriñ bi ak ay ndonoom li ñu mën ko tasaare ci àdduna si ñu jaar ca ngir jéem ko jëfandikoo ngir mbirum sëriñ bi mën a jàll ci ñëpp ñu mën cee jot. am na ci yenn liggéey yu ndaw ndawaan euh, ci misaal jël lu mel ni ki photo Serigne Touba bi nga xamante ne moo siiw daal di ciy def ab gëstu euh, ci misaal euh, traduire nañu. rapport bi nga xamantene Antoine Lasselve def ko en 2015 traduire nañ ko en arabe dina génn inshallah mais yi liggéey yu mel non nga xamne ne yu ndaw la ak yenen téré sax yu ndaw yo xamantene ne nañ ko ba nopi euh support bi ko meuna a mom moy euh ben revue ñu ko tuddé won al majalla al khadimiyya nga xamantene dina tambalé génn fi ak fi ak abdir diir nga xamne dinañ ci liggéey bu baax ngir texte yu ndaw yooyu nga xamante ne itam ñi dund ak sëriñ bi wala ñi nga xamante ne ca gannaaw ga lañ ñëw euh, nettali dajale ay nettali yoo xam ne mag ñi ñoom ñoo leen ko nettali ñu bindu ko euh, comme rihlatu Cheikh al Khadim ila Jazair ñu ni mali yooyu yëpp dinañ ko nashru foofu kon mën nañoo jàpp ne itam majal boobu bokk na ci sunuy ya te bokk na ci arka bokk na ci maanaam euh, wàll yi nga xamante ne majal bi dina ci liggéey mooy texte yu yu mel noonu ñu jéem ko ci ñu jéem ko ci tas ngir loolu yëpp dafay dugg ci euh, liggéey ci loo xamante ne euh, dafay euh, dellu ci xamale sëriñ bu mag bi te loolu ñu sukkandikoo ci ci moom wax ji mu wax ak ni mu doxee ak yenent bi alayhi salaatu wassalaam te tënkee ko ci bayit boobu te mooy alayya li wajhillahi jalla jalaaluhu laka dahra am daaxun mazayaka tarfaahu ba ca topp moom mooy bi ñu xoolee itam ci bindu Serigne Touba ak ci doxinam ak yenent bi alayhi salaatu wassalaam dañuy gis ne lu bëree bëri euh, dafay wax ne bokk na ci liggéeyam mooy fexe ba nga xamante ne yoon bi fi yenent bi alayhi salaatu wassalaam tëraloon bàyyi ko fi bu euh, jël ko leeralaat ko euh, yeesal ko ngir ñi nga xamante ne nii dañ cee war a jaar ñu xam fan la ñuy teg seen tànk ñun ñëpp gis nañ mu wax ne wa sunnatahu inchaa rabbi ubayinu ba tey itam mu wax ne yabuthu uluma diini xatti mujaddidan li nahji nnabi bil id rasmuhu afa li ma tax di bind bokk na ca mooy xam-xam yi nga xamante ne xam-xamu diine la ma ma yulli ko ba ñëpp jot ci loolu yëpp ngir euh, leerale ko yoon wi nga xamante ne sama sang bu tedd boobu teraloon na ko fi euh, te mu meloon ni ki lu xaw a ràpp kon su ko defee euh, kon ci lañu ne ha ah, kon benn yoon a ngi noonu ne ñu boole kon ci sunuy projet lépp loo xamante ne nii dafay jëm ci tasaare mbilum Serigne Touba loolu ñu tënk ko ci ay projet yu wute bokk na ci projet yooyu am benn programme boo xamante ne nii bayitu Serigne Touba bu la réer euh, boo fa duggee wala bayit booy dégg boo duggee ci programme boobu programme internet euh, logiciel boobu boo ko ca bindee dafa lay wax bayit bi fan la ñëw euh, ban at la ko Serigne Touba taalif ak yu ni maanaam ban at la Serigne Touba taalif xasida boobu bu dee itam xeetu bayit yi nga xamante ne dafa baamu lu bëree bari ci ay bind mu wan la itam fan ak fan ak fan la ñëw ni mu fi mu nekkee ndax ci digg bala wala ci fin bi la maam numéro bayit yeeg yooyu yëpp daal su ko defee loolu dafay jëm ci xamale bindu euh, euh, maanaam yulli xam-xam bi nga xamante ne wala boog tasaare mbindum Serigne Touba loolu moom moo ñu yóbbee ñu euh, taxqiq li nga xamante ne moom mooy as-sughra bi nga xamantene jamono Serigne Abdul Ahad Mbacké lañ ko dajale won te moy ay waxi Serigne Touba kesse yi nga xamantene mag ñu yare won nañ ko mu dajale ko te mu nekkon itam comme niñ ko waxe ci khilaf bi rek kayfa mattafaqa wa ala ghairi nasaq dañ ko dajale rek ni mu jappande won waye amul won ak toftale su ko defé ñu jël ko toftale ko def ko ay buntu ba mu nekk lu accessible ci ñi nga xamantene dañuy geussu kenn ku ca nekk walu wa ngay geussu da ngay xool rek ci fihrist bi euh, su ko defee mooy table de matière bi nga xam li nga soxla fal la nekk nga dem euh, daal di ko fay fekk ki noonu itam bokk na ci anamu liggéey yi ñuy def mooy jël mbindum Serigne Touba ci boppam daal di koy charx loolu itam dina am ay ay liggéey individuel ndax charxu dafa euh, mel noo xam ne maanaam faram-fàcce kenn ku nekk ak li ñuy tuddee ci arab nafas bi ngay demee ci sa charxu Euh, ci kaw loolu la jëlee liggéey bu am solo bi nga xamante ne euh, sunu mbokk mi di sëñ euh, Cheikhouna Mourtada Fallou liggéey na ko te mooy al-Mughni fi faydi al-Mughni fi mana fi maani faydi al-Ghani al-Mughni muwal ko itam génnee ko mu nekk liggéey bu am ama am solo ni ki itam Sirkul Jawahir fi axbaari sarair nga xamne itam lo xamne Serigne Touba moko dajale la te liguey bobu dafa nek liguey bo xamantene suñ borom won nañu ci tawfiq go xamne ne gën nañ ci sawarlo benen bi nga xamantene ni itam batay bi ñuy xol ci mbindum Serigne bu mag ni gis nañ ne itam bokkoon na ci yi nga xamantene gisoon na ne fa la mënon na liggéeyale rasulullah alayhi salatu wassalam moy itam xamale ay ay sahabam allahu akbar xamale ay sahabam te saxaaba yi li tax maanaam philosophie bi bi bi nga xamante ne moo waral sëriñ bu mag bi yittewoo itam ay saxaabaam mooy ne njàngale diine moom ay principe la te principe yooyu yu abstrait la maanaam loo xamante ne nii la maanaam amul jëmm ci zaaxir su ko defee la ko mën a jëmmal mooy ki nga xamante ne moo koy woote maanaam nam ko jëmmalee waaye itam li xamal tamit nit ñëpp ndax kooku mën naa nekk nit ku extraordinaire comme euh, yeneen bi alayhi salaatu waaye liy xamal ñeneen ñëpp ne loolu lu mën a nekk la mooy am ay àndandoo yoo xamante ne ñoom ñooy jëmmal loolu moo tax Serigne Touba itam yitte woo lool xamale ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon àndandoowu yenent bi euh, alayhi salaatu wassalaam moo tax muy tagg yenent bi ba ci kanam euh, di wax naan ayaa xaadimal muxtaari la tansa sahbahu faman yansahum falmadxu madxun muxattau bañ gisee loolu lañ ne ah kon kat sëriñ bi wan nañu yoon boo xamante ne nii itam war naa mën a bokk ci xidma gi te mooy xamale ñi àndoon ak sëriñ Touba ndax yoonu murid itam ay principe la la koy jëmmal ci zahir moom mooy euh, ñi nga xamante ne àndoon nañ ak sëriñ bi te sëriñ bi def ci ñoom loo xamante ne euh, dana tax ñu ñu ñu mën a mën a mën a mën a mën a xam na ñu mën a am ay royukaay su ko defee dinañu jàngat itam dund ñi nga xam ne ñoo ànd ak Serigne Touba loolu yëpp dina nekk itam ci biir euh, support boobu ñu waxoon ci ginnaaw te mooy mbiru majalla bi euh, bi nga xamante ne ñu ngi ko tuddee majallal xadimiya dina am ay épisode yoo xamante ne day xamale mag yi àndoon ak Serigne Touba euh, ba tax maanaam génération yi ak yi ñëw mën a am tamit repère fu ñuy teg seen tànk ci wàllu dundu Serigne Touba. loolu amaana comme ni ma ko waxee amagul ay téere yu mag yuñ ci kii waaye comme ay article lay doon yoo xamante ne ca biir majalla boobu moom lay doon su defee nag ci biir loolu yëpp bokk na ci li koy gën a jàppandal mooy am am am ay bërëb am bërëb boo xamante ne nii euh, fa la ñuy mooy nekk siège u arabit nga xamante ne dina fa am direction am fa ay gëstukat yoo xamante ne projet yi ñuy mën a yëpp euh, dinañu mën di ko foofu su ko defee muy dox ngir li nga xamante ne moom lañ ci jubloo liggéeyal sëriñ bu mag bi euh, ñu am ko ci. kon daal loolu ci tënk mënees na wax ne mooy objectif bi nga xam ne walla mooy jubluwaay yi nga xam ne mooy li ñuluk mbooloo mi yi nga xamante ne bii ne moo daje ci rabitatul xadimiyatu lil baaxisina wa daarisiin na lii mooy liggéey bi nga xam ne moom yemb na te ñëpp teg ci seen bët waaye lii mooy liggéey bi nga xam ne yemb na. fi lek diir bu ñew incha allahu taala danañ tek seen bët ak yeneen sumbu yu mag yo xamni ne nii ngi ñaan yalla ci baxu serigne bi mu kàttanal nañu bu baaxa baaxa baax ba yoy yep ñu genn ak jamm te nit ñi jëriñu ci te serigne bi nangul liggey euh di ñaan nak suñu borom mi nga xamne ne borom tawfiq mu defal ñu tawfiq ci barke serigne bi ba yene ak yitte ak bëgg gi nga xamne am nañ ko ci ñu man ci def lañ ci yéene lépp man cee def sax lu kawe suñ jort man cee def lu kawe suñ yéene te lépp itam mu ànd ak nanguk sunu borom ak ngërëmam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wa maqaalukum inni ujahidu sadiqun inni li wajhi llahi jalla ujahidu inni ujahidu بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد